waaw. waaw tos. te xanaa génnul. waaw te damaa xaw damaa xaw kii dama dama xaw fatigué moo tax quoi fan yii amul jot. yaa ngi sa sa business yi rek. ba léegi kay. wallaahi. sànq sa gars yi ñu ngi may woo ni mais damaa xaw damaa xaw kii moo tax déwén. damaa xaw sa soñ mi teg ci. ah ah waaw soñ mi ne daa bari fi ne. soñ mi ne daa bari. su ma ñu bànkee war na maa defal bu yëg bi sax moom. dina ko defaat dina la ah loolu kay moom dara na ko. waaleykum salaam ah am na. ah sama yaay ñëw na. tabaarkalla yéen a ngi ci jàmm. ah mer da ngeen def ñu ngi nii rek. nga demoon daal de. ci jot rek alhamdulilah. alhamdulilah tabaarkalla kay. suur man na nga def. ko njaboot ga. ñëpp a ngi ci jàmm. ñu ngi ci jàmm bu baax. ña nga fa. ana gone ya. ñëpp a ngi ci jàmm. alhamdulilah. alhamdulilah. ah ma jóg maa la ndox. jaru ko. ah yow baax na ma yoon ndox rek. naan naa ci yoon yi balaa ma yegg si. ah bii. waaye bi nga jël ma anu ah, ma lay woowe ah am sa numéro yaay nag dëgg yàlla yow sa nijaay ne ma naa la jox sa numéro te joxuma ko. ah yo whatsapp la amul nag amutuma ah, whatsapp. léegi li ma nga woo ma ci crédit ah, normal bi nga woo ma ci crédit normal bi. Eh, daa am lu may séntu nag fan yii moom bu ci kanamee tuuti. ñaa mm-hmm. woote ba dugg ba vocale. baax na ko xanaa asoog kee weneen gëj nañ fi de. a dañ maa ba dañ maa ba. ma ne ko dañ maa ba yàlla mu ne nii nijaay yu muy jeex nga de. jeex. ak sa yére yi nga sol ni mel nii. kon nekk ci kër goo xam ne dañ lay sonal rek. ah ma ne jaaxal nga ma. walaay ku la sonal am am am yu am yu mbañ ju bon. ba nga fa ah! jógee demeloo nii moom. mu di mu xam naa ne xel moom nekkoo fi nekk ba gën ci yow. nee ndax ba nga fay jógee meloo nii. dama ni nga toog dama ni eh yow gisal te toogal nii yow toogal nii toogal toogal nii yow ñàkk nga fayda trop jooyu Ablaye dama ko gëj a gis yow ma sa ñàkk fayda sa naqar dara gi nag doo jub jigéen sa jiital sa naqar dara gi nag ko teg ko sa kaw jarbaat bi ah awa te munoo fexe awa ma ne awa la awa fi ni moom moom moo ne ci kawam ku nekk ci kawam moo ne ci kawam moo ne ci kawam ci naka ci lépp tuddal ma ci benn général tardeetul añ ku tardé daan ko yekkal daan ko tibbal teg nii ci biir ndox mu sedd alors su ma demee su ma ñëw maañ général xam nga ne suuxam yi lii lii lii mel woon nii kii wow koŋ kii moo kii kii dañu ne baal la ko dara ba muy jógee jëkkër ki tabaat yi da ko ëppee dara bi ne kaar xool ma man fii rek damay xañ sama bopp di ko jox la moom mi ah waaw wax daal li gudd gàtt noonu ma koy gudd la di gàtt moom mi lay jël ji <laughs> général di tànk tànk a la wax général bougé wu ko fii di génn kër. tànk bougé wu ko fii dem tànk waaye xamut xamut xaj baa ko xaw xamut xamut ci xama ngi toog. li ma mën a wax général laa wax jugewul ci kër gi di dem. demul tey ba mu fi dellusiwaatee na la leer ne. de. waay waay général yow Ablaye. te ni yooyu daal la coow yaa yaa ngi dem may may yow xam naa ko moom boo ñëwutoon dinaa la jël si. sa dem génn kër soo ñëwutoon dinaa la jël si. bii kay nii ñu bokkee. dana buñ leen laajee Ablaye. waaw bii nii ñu bokkee soobee yàlla dinaa la jël si. dinaa laa demut demut de. man nii ñu bokkee heure boobu ñëwee kër gi jax. général dimbali ma ngir yàlla wax damaa wax a wax a wax ba sama. yow li nga sama yax yi fii ne. yëpp a génn ngir yàlla. xam nga ne defalu la fi dara mënu nga koo bokk. dama toog de dama kii mi ngi fi di nga toog bu la sa ndey raw jógal. muy mel apporte meew si turu gaas sa nijaay. boo xam a sa a nijaay bu contact nga dem te xoolal da ngay ñibbi de. def sang sa ziyaare ji seeti samay nit ñu baax xol yi dafa a neex fal ma ak